waaw mi ngi nii ceeb baa ngi nii si ngeen nii mu leer xete nii mboolem lu ngeen gis muy tàkk-tàkk nii mboolem lu ngeen gis tàkk-tàkk nii mooy li nga xamante ne bii moo rax ci ceeb bi gis ngeen ko nii wedd gis di cee bokkul jubluwuñ ci yàq kenn ci lenn wante damaa bëggoon service di seen si jëm boppam def ci ay gëstu parce que lii jaaduwut jaaduwut tey jaaduwut ëllëg léegi nag man sama jëm bopp man maa ngi tudd Birame Diba maa ngi ko filmage fii ci Mbéngeen gis ngeen ko saako bii mi ngi nii saako baa ngi nii waaw saa saako baa ngi nii xool leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax saako baa ngi nii dégg nga xool leen ko yéen ñii bëgg a jël ay numéro jël leen ko mi ngi nii jubluwuma ci yàq borom marchandise mi waaye li wérti wóor mooy lii askan weeku moom dégg nga kon li ñu lekk loolu dañ ko war a xam si ko li doon leen xeet ci biir saako bi mi ngi nii ngeen di jàkkaarloo nii dafa fees dell ci saako bi te xam nga yow nit ki nga jënd ceeb indil ko ko bëgg ci lu baax wëlbati ko lor ko loolu xam ngeen musiba la musiba naaru laay la kon na ngeen ci bàyyi xel maa ngi leen di siyaar baax te tuub tey jéggul tey ñaan nag sama audio bi képp ku ko jot na nga ko partaase fexe ba service di seen jot na jël numéro bii bu ko defee bu demee ci ki moom ceeb bi dana contrôler ña fa nekk dana gis li ci am lépp maa ngi leen di siyaar baax di tuub leen jéggul salaamaaleykum wa rahmatullah